ne bi ñu ñëwee li tëbul li jëlu li jël yëpp ne moom fàttali ko yëpp ne moom ci société bi la bokk loolu la bokk ci jubluwaay bi gën a rëy loolu moo tax ci suñu borom subhanahu wa taala ci alquraanu karim mu soññe lool ci ay aaya bari mu ci li ñu ci joxe loolu yàlla aaya yooyu jëmu ci jëmu ko lu ko wax ak loolu ci jëmu yàlla waaye li yàlla maa maa ngi faa mu sax bi alxuraan moo ëpp fuuf bàtt loolu nag lay day day tegtale am bu loolu moo tax ci alxuraan karim subhanahu wa taala wax ne ñi nga xamee ne ñoom ñooy am lu baax ëllëg yu man xiyam fa yàlla mooy ñi nga xamee ne ñoom bi lañ bëgg am ko dañ koy nangoo dañ koy mën a joxe te yàlla tax lan tanaalul birra xattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun li ngeen bëgg ji tey ni ko yittewoo ko loolee noonu si ngeen ko dee su ngeen ko joxewul du ngeen am al birr su ko doon joxe nag maanaam ak bërëb mooy maanaam lu baax kon di fexe bay joxe loolu dafa nekk lu am solo rawatina nag di jox kii ngeen da ko aajowoo rawatina nag bis ay bis yoo xam ne si kenn yoo xam ne bis yu mbëgte lay doon bis looloo waral yonent bi araamal na du ko kenn woor dafa xaram su ko woor ko woor na am bakkaar moo koy tëbët ki ñooy ak fan tëbët ki yooyu yooyu dañuy bëgg ñëpp bëgg ñëpp kontaan ndax loolu mooy dafa bokk dund doomu aadama léeg-léeg mu bëgg ak yu mel noonu ndax lislaam nekk dëkk di diggu doomu looloo waral mu mel noona moo tax mbégte moomu ñuy bëgg loolee dindi da ko santaane bëgg ñu ñu jugal mbégte ci xol yi ci xol yi ci ñu ñàkk rawatina tamit xol yi gone yi ak jigéen yi kon yemale ko foofu di ñaan yàlla mu may ñu ak dégg ak topp te nangul ñu suñu koor te lépp loo xam ne ñu am na ci ci laxu ak rafas yàlla ñu ci yàlla jéggal te yàlla na ko yàlla na ful te yàlla na ko yàlla denc ba du yàq di julli ak sëlmal te sunu sang bu tedd ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala mu ngi dégg ci alquran nañu julli ak sëlmal ci moom inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yàlla ki malaakaam dañuy julli ci yonent bi kon nag yéen julli ñu tuddee julli ak sëlmal ci moom julli yonent bi nag comme ni ñu koy waxee fas bu ne la baax waxtu wu ne it la baax waaye nag rawatina ci bésu ajjuma bésu ajjuma moom dacaa rawati kon ñu bésu ajjuma bii ñu bëri la ñuy julli ak semaine ci sang bu tedd boobu ndax ëllëg yomal xiyaam mën a bokk ci ñoom yaram yàlla yàlla julli ci moom julli ci ay ñoñam julli ci ay saxaabaam in uridu illa al-islaaha ma stata'tu wa ma illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wa aaxiru da'waanaa an alhamdulillahi rabbil aalamiin